jaisatu Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul al aalamiya lil quraan al karim alhamdulillah ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu bokki journaliste yëpp muy presse bépp nag bii bind ak bii wax yëpp ñu ngi yëkkat suñu kàddu ginnaaw bu ñu sante yàlla bu baax sant Serigne Touba. sant xalifaam bii nga xam ni moo fi nekk muy Cheikh mun Mountakha di ko ñaanal fan wu gudd ànd ak wér ak ñi nga xam ni ñëpp jox na leen ay ndigal di leen liggéeyloo eh, ñu symboliser ko ci Cheikh Mouhamadul Bachir moom mi nga xam ni mooy wax ci turam ak képp koo xam ni dénkaan na la ay liggéey ci biir màggal gi ak lu dul màggal gi ñuy sant ñëpp ci seen taxawaay ak seenu jàpp waaye di sant bépp service boo xam ne mi ngi ci réew mi te yëg mbir mi te man ci dara waaye di sant bokki taalibe yëpp nag ci seen liggéey bu rafet ak seen jàpp bi ak fàttali gi ñuy fàttaliwaat ñu xam ni ki am kenn amu ko ndax biñ tàmbalee mbir meeg léegi fu ne nit nga fay woote di ci def lam man kon ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaan alxuraan mi nga xam ne mooy suñu lépp te ki ñu am lu ki amul lu dul moom muy Serigne Touba mu wax ni léppam ci la ko amee dénkuñu ko wax ne ndonoom ci la nekk bind ko bàyyi fi ñëpp di ko dégg wax ca lu bëree bëri bi xidmati alqurani wal xadiisi yathbutu laa bi dahabin mawruusi kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab laa jamau fiddatin wala jamau dahab yooyu yëpp mu wax ko ci alhamdulilahi rabbil alamin di sant nag lajnatu taxkiim ci njiital sëriñ Xaadir Jaxate sëriñ euh, Bachiru Saaxo waaye ak Cheikh Mouhamadul El Mamoun mi nga xam ni liggéey boobu kenn jiitu ko tam tarañu ko ci yoon mu nekk nii ci suñu wet te war a yëkkati kàddu moom ci turu membre jury bi ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm. waa alhamdulilah ndax euh, bu dee ci xam nga looy def lu ne la ca di ko njëkk a def muy première édition. man ngaa am ay jafe-jafe yu bari waaye nag eh, jafe-jafe yi bëriwut ndax lu ñu lu ci ne dañuy tiim ndax kiñ koy defal moo toll noonu ndax moom dafa waxoon ni nosum mbindeef yi ci jamonoom ci loxoom la yàlla teg zimaamul wara asri ladallaahi fii yadi wa ma rumtuhu min malikin qaada bil ani te lépp looy def rek yàgg doomu aadama yee koy def comme nag kiñ koy defal xol yëpp nangul nañ ko ma waral lépp dañoo tiim bu ñu waxee dëgg daal lépp dañoo tiim ndax ku ne lam man ak fam ma ne ma ngi koy def moo tax njàmban ñun duñ ko def mukk ñi ngi sant rek ñi ngi sant tey ñaan mu gën jëm kanam waaw. waaw ñaata ndongo daara ñoo ci participer ci li ñuy tuddee final bi tey mooy mat nañ fanweer ak ñeent départ ba ëppoon na loolu waaye fanweer ak ñeent ñoom ñooy ñi nga xam ni ñoo participer. ñaari ñi nag euh, di waa étranger ndax xam nga bu ñu waxee international kero ba ñuy lancé fii le 29 janvier dañoo waxoon ni c'est une concours international waaye nag comme dañuy door a tàmbali te képp kuy jógee bitim réew di ci ñëw prise en charge bi grand prix bi moo koy yore ndax koo xam Touba xam sëñ Touba xam ni euh, teraangaam da koy yaatal jëme ko ci ñëpp moo waraloon ñu ni kon ki nga xam ne da ciy participer au niveau international même au niveau national dafay doon koo xam ne grand prix bi moo lay jël en charge moo waraloon ñu ni comme ab début la te xamaguñ nu muy demee ñu jël ñaari réew benn bi réew bi mooy Mauritanie nekk ci suñu wàcc beneen réew bi muy Burkina Faso su ko defee loolu dafay symboliser euh, maanaam Afrique euh, arab bi ba waaye it Afrique gu ñuul bi ndax loolu lépp ci ci ñoo bokk Afrique waaye ñoo bokk bitim réew ndax boo xasee ni boo xasee génn réew mi rek lu génn réew mi bitim réew lañ koy tuddee ak donte sous régional lañ koy wax waaye dañoo bëgg a tendre vers maanaam euh, ci penku bi ak ci yeneen réew yi gën a sori yëpp ci lañ bokk fu jullit nekk tey jàng alxuraanul karim fas yéene nañ incha allahu taala par étape ñu di leen invité ñu di ci ñëw moo tax kon ñaari candidat yi Mauritanie la ak Burkina Faso xam naa da ngeen leen gis bu ngeen siiwaree concours bi ndax xam nga concours bi ñetti fani alxuraan la tey euh, dañ ko inscrire ci programme mu maanaam màggalu Touba ci njëlbéen dégg ngeen ni ko sëñ Bassirou Mbacke Euh, annoncé woon ci bi muy def CRD bi waaye dégg ngeen nit bi muy def déclaration am ni ko annoncé woon noonu rek la mooy lan yëngutub alxuraan la di ñetti fan yoo xam ni dañ koy def jàng alxuraanul karim ñaari fan yi mooy tey mooy premier jour bi ñuy remercier bu baax sëriñ euh, Ahmad Badawi moom Cheikh Mouhamadou Fadel ci teewaayam bu rafet ndax buñ ko déggee rek buñ ko sàkkoo ci mum dafa ñëw teew waaye di remercier bu baax sëriñ Cheikh Lappe moom biñ ko sa biñ ko sàkkoo ci moom dafa daal di ñëw ngir teewal Serigne Mouhamadou Mountakha waaye di remercier bu baax Serigne Cheikh Abdou Bali ci teewaayam bu rafet ngir ñëw représenté lépp luy màggal gi ak Cheikh Mouhamadou Bachir ak famille bi yëpp waaye it di remercier bu baax Cheikh Mouhamadou Xabbaan moom mi nga xam ne liggéey bi ci ronam lañ koy defee ndax liggéeyal sañ tubaa ci tubaa lépp dañ ko organisé te ku ne xam ne ni wàllu njàngum alxuraan mi moom moo ko jiite moo tax duñ def dara luñ yëgowut ak moom bi nga xam ne nekk na ci it yu jàmp it yow na na fi Cheikh ma Sy gis ngeen ouverture bi sax moom moo ko def ndax lan loolu moo war a am ndax liggéey bépp ci loxoom la tegu kon daal 34 candidats incha allahu taala ñoom la ñu départagé tey mu nekk nag ci ñetti faraw mooy ñetti banqaas banqaasu mokka alquran man koo firi nga xam nii da nga koy mokkal man koo firi gis ngeen yéen seetaanal seen bopp loolu en direct la waaye mokkal alquran ba noppi mokkal ko mokkati rafet waaye mënoo koo firi boobu it gis ngeen ko boobu egseegul tey feeñagul waaye bi mujjagul ngeen ñu nekk ci ni bi bële jàllee bee moom jeex na waaye ñu ngi ci deuxième bi mooy mokkal alxuraan te mokkuloo alxuraan waaye jàng nga ci lu mu gàtt gàtt fukki isib muy xale yi ngir ñoom it ñu mën leen ko encouragé nga xam ne bi dafay mel ni maanaam ñetti pàcc la maanaam liñ naan wenn se wenn xeer nga am ci ñetti picc waaw all in one daal moom la maanaam benn nga mën ci am lépp daanaka mooy ñi nekk ci kaw ak ñi ne ci digg bi ak ñi tàmm door a tàmbali moo waral kon tey ñu ngi ci deux premier jour ouverture bi fi mu ne nii ñi nekk ci tafsir bi jàll nañ juróomi candidat lañ ñeneen ñi ci topp ñi ngi ñëw xëy na détails yi sëñ Mamoun bu ñëwee moom mi ci waa lañu sax ki mooy membre jury bi danañ ko gën a leeral waaye waaw loolu moom ba léegi faw ñu dem ba ginnaaw suba ca bala ñëw xëy daal bu fekkee ñëwaat ne ni ngeen laajaan ñu wala le matin danañ ci mën a wax mën naa yéen mën naa min ñu bàyyi muy kumpa ba egg ci bis ba rek ñu joxe chèque yi ngeen gis ni li lañ am waaye dal fas yéene nañ lu fi ñëw ndax fi ne dañoo bëgg nu mu gën a baree moo tax euh, comme ñi ci liggéey bi bokki taalibe yi fu ñu mën a nekk ñu ngi leen koy fàttali ndax bu ñu sañoon danañ ci joxe luñ mës sa joxe ci ab concours ci biir Sénégal waaye nag ci fekk mu mu tombeek suñu borom dogal ko moo tax incha allahu taala maanaam moom lañu waxoon ci njëlbeen lum néew néew daal nit moom dana ñi jiitu danañ weesu juróomi million lum néew néew